Sene Info International Sene Info International dalee nag jàmm si lu gën a fës euh, si xibaar yi euh, lundi 20 novembre 2023 niñ koy dooree rek par euh, Sud Quotidien journal bi di xam ne ne candidature de l'ex-Pastef à la présidentielle 2024 donc Diomaye Faye sur scène Diomaye Faye moo nekk candidat bi nga xamante ne moom waa ex Pastef ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko moom la choisir comme candidat la présidentielle moom moo ko war a wuutu donc ñu ne euh, l'opération de parrainage lancée ce lundi donc tel di la lancé opération de parrainage ki nga xamante ne moom mooy Diomaye Faye nga xamante ne moom moo war a remplacer Ousmane Sonko euh, à la tête de liste de l'ex euh, moom mu ngi ñëw si toujours rek si information boobu dina jeu d'échec avec Macky Sonko avance son pion donc Bassirou Diomaye Faye choisi candidat à la présidentielle donc euh, loolu la journal bi xëy fasal si itam mu njëkk euh, source a tamit mu ngi ñëwaat encore rek si euh, candidature bi nga xamante ne moom mooy Bassirou bu Bassirou Diomaye Faye nga xamante moom la waa Pastef la bi nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko en marche donc B bi nga xamante ne daawoon nañ koy waxtaan yi yëpp que waa ex Pastef dinañ am plan B donc plan B bi mooy ñu ñëw si beneen journal euh, ñu bëri ñu ñëw ci enquête enquête moo ngi xamal euh, projet de loi des finances initiale bu 2024 donc voté nañ ko à l'Assemblée démb ñu ne la ñu ñu la valse des milliards donc loolu la euh, yéen kaay bi enquête xëy fasal si itam ba njëkk. ñu ñëw encore si direct news rek moom tamit mu ñëwaat encore de si wax di wax si ministre des finances le cours magistral de Moustapha Ba loolu la loi des finances initiale 2024. Euh, Moustapha baax moo nekk ministre des finances nee na le Sénégal est en train de perdre milliards de francs CFA de recettes fiscales avec le renoncement de à certains taxes et droits de douane donc euh, waxaat na aussi ci journal bi de nee na depuis 2014 les recettes budgétaires augmentent d'au moins 10 pour cent chaque année donc ministre bi loolu la xamle ci ëtt jëkk lu gën a fes ci euh, journal bi Direct News ñu ñëwaat encore ñu ñëwaat si le soleil rek le soleil mu ngi wax encore si les grandes lignes du budget 2024 loolu la titre journal bi euh, nee na 7000 ah 7000 7003,6 milliards de francs CFA donc forte augmentation des dépenses des dépenses d'investissement évaluées à 2138,4 milliards de francs CFA risque d'endettement euh, de surendettement modéré loolu la journal bi xëy fisal euh, si ëttam bu njëkk si yéen a donc ñu ñëw si l' observateur l' observateur mu ngi ñëw euh, fësal Macky Sall rek nee na sortie euh, musclée du président Macky Sall diagnostic état émotionnel donc euh, jàpp nañ ne journal bi surtout suñu sukkandiku si journal bi nee na Macky Sall cette colère et l' extériorisation du de déception qui l'anime et cette trahison de la part def na ay sorties fësal na li nga xamante ne moom mooy meram wax na li nga xamante ne moom moo ko nakari par rapport ak li mu gis si dëkk bi ak aussi li nga xamante ne moom la gis si certains collaborateurs donc Macky Sall hésité wul benn yoon si euh, voilà vraiment dingat euh, ñi nga xamante ne moom mooy entourage am aussi c'est-à-dire aussi un langage de vérité à ses collaborateurs donc des tuuti journal bi mu mu ñëw euh, dans sa une wax ñu encore si benn feebar boo xam ne mu ngi lor xale yi muy jabet nee la lu lourd quotidien des enfants diabétiques donc xale yi euh, diabète bi mu ngi leen di laal bu baax a baax tax na ba ki nga xamante ne moom mooy benn xale nee na nga xamante ne diabète la am nee na à cause de la maladie euh, mes camarades me taxent de drogué donc euh, diabète nekk na feebar boo xamante ne mu ngi laal xale yi bu baax a baax a baax ci Sénégal donc ñu ñëw ñu jeexalee rek ci réew mi quotidien bi nga xamante ne moom ñëw na dem si li gën a fës ci xibaar yi walla ci actualité bi mooy. lamb bi nga xamante ne opposé na euh, Siteu ak Lac de Guiers donc euh, sur décision arbitrale euh, ñu jox victoire bi nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers loolu la journal bi xëy fësal tey si ëttam bu njëkk si yenn kaay yi ñu ngi leen di bu baax a baax si teewlu bi te di leen wax ñu yendu si jàmm merci. Sene Info International.